وليد Fatma na yàlla xaar la man ndax mu waat ma Cheikh Mbacké ma di sax teewal ma way la man bopp naa la jàng naa la xëy la doo gisu la xam fadlu yaa di gor sax ak yow danaa la may danaa sax yaa tedd yaa tedd daraam waa da dooran nga ku nekk ganaar ba fuuta ñëpp naa la maalum doo fàtte dox bi bottee doo futti googa futti googa bottee doo bottee doo gëdde te yaa waddu yàlla na say bañ yëpp xëy ni koddu bu doon tere amaay bañ doo ku bañ Serigne Cheikh Mbacké mbaa ku foñ du janni kenn waaju ñëw yaatal soppeem yaag bañam yi dunu ko baatal wéete ko soppeem ba tax mu bombe wéeti biiri noon ba defar njombe xajul fu sew di xol bi lii buy jaaxal te li dalam ngay jëfale ndagaaru ay junni ngay jëfale ndar ba daaru di zima sen atone ceeb ak saa ngay maye yow baa du la gëdd gaaru mbakke ba jur koo fi gis muy tuuse sa bom la yor waaju bañ moo xuuse cay li nga def ci réew mi gaynde Fatma yaa yor Sénégal ku bañ solution mbakke yàlla du la baal ku ràgg kay mu faj la mooy tabiibu loo ko tawat mu faj mooy abdi mooy rahmatan lil alamina turaa loo ñàkk ñi ko maali aw ma dara gor saani sama sëriñ ma gaay na di wax bu leen ma jaay man duma ko daaraana di bay toujours c'est ma savane waaye jaloore gay na faat ma zamb ku de lu bëgg boo ñëwee fa sa kër góor moo ñi ko doon ko yónni ñi dooroo saa ci amoon diggante taalifa iraada ba dem saa datu sam yaa moom ba gër leeg tànk jàpp kere fëgër sëriñ Tuuba nga def say téere yaa doon kër Bamba samaam fa njurbel doon naa le dongo yaa ña nekk sental tay téléphone dem na ba daaru bay laa dem na ba tayis gir gi man ma way la daaru xuddoos def nga fay dinaamu def nga xayma yuy wóoloon nii leen mu wax pare yàq fa gànnaas ni kon suuf sa bàyyi ko tedd ba raay ba moo fa def mu ma Moustapha mooy li Cheikh Bamba te bii mooy waaye yaa di doomam Cheikh di sa baay fan jurugal jënd këru Mbacke bool nga yaa dal jënd këram di sa baay nga daaru dolli ci kër yi toll ni moom ñu waaru yaa jënd këram di sa baay fa kat yee sa këru baa ngay gaa yaa ji tëdd النادر العوبة الرجال يومني سودا حسين هذا اللي سبعي فلولو بلدي كل بني مجولو وحرام دم لا لا لا جاء مثال سبتم برما كسان دمي كسان تلفتي ورما لا لا لا جاء مثال Ahmadu Nurma iku sangga mai busantul feci warma متى تبي شيخ فن نحن فالما دموتي بني السمك أربعة ميلة محمد saakir soxna yu bon ya ñoo di njariñ yaay ma nga di ne faadilu doy na tegtal te max naa tuddi xam ne na booti mbir ma nga tudd ñu tuddee faadilu doy na tegtal fi doyloo tey nekkul tànki Moustapha. Ndoro mi Seex Moodu Moussa Mbacke ngoog yëkkati leen seen ñaari loxo di ko ñu màggal Seex Moustapha waay loxo di ko ñu màggal borom Mustafa que mostrava Bamba baatilun sëriñ boo fi doy loo doy dugul tànki Mustafa sanul Bamba baatilun sëriñ boo fi doy loo doy palaasu sëriñ Tuuba da koy jooge yi leen عاد أسلي لين طاب مصطفى أسلي لين

fi nun ku koy muusu koy muusu samuus muusu Mustafa Sëriñ Mustafa taalam ba insa adootu fay leeru Sëriñ Tuuba dafa leer Mustafa insa adootu fay leeru Sëriñ koy fay amul jógu leen con yoon ko Mustafa ba Sëriñ Bamba ut matam la koy fay amul jógu leen bisab yan di dinke waay ci daagu Mustafa sa jàmm te fenkee waaw saabu Mustafa danoo galamoon boobee ba tey waaye yeewu nan di sa jàmm te fenkee waaw saabu Mustafa ba tey ba tey nan di sa jàmm te fenkee waaw wal sinsaar ma fuuta ak jooloor suli nay seenum saako yaa seyku mustapha saalum يا دي سياكا يا بابا مصطفى boole jëbal nañ la sunu mbir yi noo ngi nii defar noo defar ban sot Cheikh Abdi Moussa مرنا دمر موسى تصرب على جبل دبرنا دبر بنو ستي سي خمدي موسى المصطفى defar noo defar ban sotti Seex bi Mustafa defar noo defar ban sotti Seex bi Mustafa ko doon tëkk foofu la wàcc gisee François Mitterrand boobu ci opposition bi la ne mu demandé visite seeti victime de guerre yi nga xamante ni ñoo nekk hôpital te desoon fa ci 39 45 ginnaaw bi mu dem archive nationale xool seeni dossier gis nit ñi réewum France da leen a faj da leen wala da dommage ku ci bëgg ñibbi ñu bàyyi la nga ñibbi ku ci bëgg ay kayit tam ñu wutal la ay kayit nga am nationalité François Mitterrand jël loola yóbbu ko assemblée ñu wate ko mu gañe ko ca booba itam lañ wax ni nañ ko wutal passeport diplomage ndax kii réew Afrique yi moom la fi nekkal te booba kaasalu doon Sénégal rek waaye booba nag gisoon ni programme bi mu yar mooy organiser njàngum l'islam ci biir Sénégal te loolu rek moo boole woon Sëñ ak tubaab yi Sëñ Tuubaa li ko boole woon ak tubaab yi mooy saxal njàngum diine ci ci biir Sénégal loolu rek moo ko jaxase woon ak tubaab yi Sëñ Cheikh amoon xalaat booba mooy jële njàng mi ci àlluba yóbbu ko ci CREI ak tablo yóbbu ko ci ay bang yee salaat loola itam doonoon lu bees loo xamante ni ni taxoon na ñi mu bokkaloon réew mi bokkul ak ñoom aw gisin ba tax na ñu taxaw ci kanamam ca tournée boobee ba mu ci jógee la wax ni gis na ni monde musulman bi gis na ni 70 pour cent yi ay ndaw lañ mu gis ni itam ni 70 pour cent yooyu faw ñu taxawu leen mu gis ni itam bu fekkente ne ni quatre vingt pour cent yi ñoo ci ñooy fekkee déwén nee na soixante-dix pour cent yi ay ndaw lañ moo taxoon mu wax ni seen teraangay doomi ëllëg na leen gënal seen teraangay tey kon waxul njariñ loo fekke ci loolu la jeexal dundam ngir waaj rek ak wan ndaw ñi fan lañ war a teg seen tànk ba bu ëllëgee ñu amal seen bopp njariñ amal société bi njariñ ci lii la jeexal ak dundam doon taxaw ngir ndaw ñi mu mën leen taxawu taxawin woo xamante ne ni suñ ca jógee deesatu leen mën a nax moo tax mu waxoon ni mënuma ku ñuy nax ma taxaw ci sa wet ni la dañ lay nax waaye danaa taxawu nit ñi ba bu ëllëgee kuñ ci naxati nga xam ne dañ lay nax te loolu lay tax mu mën a am mooy nit ñi dañ ak réer mu jihaat ci jihaat ju ju yaatu ju am njariñ joo xamante ni ni tey nun ñëpp gis nañu résultat bi dëkk yu bari dañ daan war aw fas ngir jàngalu ji ab leetar te bari na ci réew yi kajoor foo xamante ni ni boo fa taseeb kamil doomi dëkk baa koy jàngal seen bopp te loolu grâce à yooyu yëpp ay taxawaay la ak i wàccaay yoo daf nu doon wan aw yoon woo xamante ne ni buñ ko sóoboo daanu gis njariñ lu wér loo xamante ne ni kenn du ko nattable ci ñun ci ni lii la nu bëggaloon loola nag mel na ni sunu bëtang ci commencé xeppi noo ngi commencé di mos cafka ga di xam fim nu jëmale woon gannaaw bu mu nu dëddoo ay at yu bare bari ñu door a xam ne ndekete coono ba mu doon sonn jëmmi boppam taxul nun ñi rekk noo taxoon loolu moo tax bokk yi tey delloo siwaat tomb boobu bëgg koo waxtaanee waaye rëkk waay buñ ko barkeeloo nañ ko jariñoo nañ déglu sëñ Mbàkke bu baax a baax ci li muy wax ñu jëm koo teg ci taabal ji jëm koo topp sang si ñu ngi leen nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi tey di ci jiital kilifa ak jotaay yi muy Serigne Moustapha ak Cheikh Abdou Lahad bi mu àndal ak mboolem ñi nga xamante ni ñooy seeni mbokk di ziyaare itam njabootuk Cheikh Ahmadou Mbacke gi muy njabootu deret gi ak njabootu xol gi sëñ Baye njëkk gis naa ko fi sëriñ Malick Dem ak ñi fi nekk ak ñi fi nekk te ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg ngir dañuy wuyuloo Cheikh Ahmadou Mbacke wax naa ko kenn ci sama mbokk yi nag ne ko da ngay juum soo yaakaaree ne wuyoo sëñ Ahmadou Mbacke mooy doon doomam rek maanaam ku war a donnu ci alal ji ndax Cheikhul Khadim moo waxoon ne al waladu daani doom ñaar la dafa am waladul bi ak waladu bi doom joo xam ne sa doomi ndigg la moom la ñuy wax doomi deret ñun ak doom joo xam ne doomi xol la doomi xol mooy ka nga bokkal pas-pas mu gis la wóolu la ci suñu borom subhanahu wa kon ñun ñépp suñu dëggalee ay doomi xol lañ ci sëriñ Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma ñun ñépp nag laa wax Baye Abdou Diaw xataaba nee na ma Baye Chafal mu baax ma sëñ Tuubaa da ko mas a wax boobu njaareem coow am na fi gone yu ndaw yi ba am na lu fi xew daal xëy na jamono weesu na foofu waaye sëñ tubaa dina ko cheikh man ku jub maay sa baay ku jubul nëqma ci yow dara kon ñun ñëpp nag yàlla nañu sunu borom boole ci jub googu ndax ñu bokk ci doomi sëñ euh, tomb bi ni ko sëñ ahmadou waxe moom waxtaane na ko ba noppi kon léegi man damay jël ñaar fukki minute rek ñu def ay jukkat yu gàtt ci li ñu jàpp ne gisiinu sëriñ bi la génne ko ci waxam ak ci dundam lu jëm ci lii ñuy waaj a waxtaane te muy taxawaayam ci waajal njaboot gi ba ñu xamal seen bopp ba dañu réer manal seen bopp ba kenn du leen sañal euh, gis nga jotaay bu mel noonu baax na lool ndax dama koy faral di wax fu ma toll loolu sax boroom xam-xam yépp ko wax nee nañ aw askan wu manti doon moo xam société la bu gën a yaatu nii walla nation la walla kuréel ñu bokk lu leen lëkkale bokk ay objectif ngir ñu xam ñooy kan nag ñun ci gàttal mën nañoo delluwaat ki ñuy wuyoo muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma mu jeex ci njàngaleem ci dundiinam ci tarbiyaam ab yaram su ko defee nag ndem ñeen fukki at bi mu fi làqook léegi xam nu ñu taxawee ci ndénkaane li mu ñu dénk ndax bàyyi na fi loo xam ne jëmmam taxul woon askan wee taxoon mu jullit ñépp léegi nag ku nekk ci ñun dafa mel ne gàlloo na ci awloosam mu mën a mu war a wéyale ndénkaan loolu ak njàngale moomu te am na ci yenn ci ay bindam fu mu koy waxe mu ne wa alal xalafi an yasuuna athaar al xalaf astafurlah wa alal xalafi an yasuuna athaar salaf mu ne ñi fi des warteef la ci ñoom ñu ñoŋal dënk bi wala ndonol ñi leen fi ba ñi ñuy wuyoo ñi ñuy ndamoo sëñ Amadou da koy wax lu bari man dama koy abbu soppi ko tuuti day wax ne murit boo ne woon kaay ma jox la milliard te doo bokkati ci jumaa ji da ngeen am jafe-jafe waaye ñun ñëpp itam noonu la mel ci sëriñ Seex kon dañu jàpp ne njaboot gi lañ ñoo war a yore ndénkaan li jéem cee def suñu kem kattan léegi nag comme que toll nañ ci ñeent fukki at yu ma sëkk am nañ kaanam mi ngi dox bu baax a baax gis ngeen daay bi macha allah mën naa gën a jën kanam bu baax waaye ñëpp xam nañ ne mi ngi dox mi ngi réalisé gis nañ ay yeneeni barab yeneeni sumb yu mu fi bàyyi woon ak bu nekk na doxe kon ñu jàpp ne liy tënkub liggéeyam bokk na ci ponk yi ci gën a am solo mooy li ñuy waxtaane wala li ñu bëgg a gaaral mooy taxawaayam ci waajal ndaw ñi nga xam ne ñoo doon magi ëllëg ngir ñu mën a xam ba dañu réer kenn du leen dugal ngir ñu am ba mën a mënal seen bopp ba kenn du leen sañal loolu jàpp nañu ne daanaka lépp ci la bokk kon li ñu tàmbali mooy askan dañuy wax ne euh, li koy li koy jëmale kanam ñaar lay doon wala moo mën a tasaare am njàngale ci gàttal muy ndaw ñi ak jigéen ñi rawatina nag ndaw ñi moo tax da gis ne ñi woote woon ñëpp ñi ci ëpp ñi ci ndam mooy ñi nga xam ne ndaw ñi dañ leen a gaaw wuy ñooñ ñoo ci ëpp ndam gis nga yéen saasan bi mu kiyee daanaka ku mu mag dugg ci wala yeex na cee dugg Aboubacar la moom ak Aboubacar xanaa ku demee ne eh, Saad ibn Abi waaye moom ak Omar ibn Xataab Ali moom ndaw la woon ci wetam ñun ñépp ay ndaw lañ ndax dañoo yore cawarte gi li ñu wax enthousiasme sawar lool derati gone gi ak itam gëm li ñu gëm waaye mag ñaare wala day wax ne jikkoom moo ko jik ñenn sax dañ naan jikkoom bàmmeel waaye li am solo daal mooy soo gisee loolu itam ndimbal la ci mooy ku ndaw ñi teel a si loolu feeñ na ci sëñ Tuubaa ñi ko wuy si woon ñaari ñu néew ko ci mag ca njëlbeen ko bokk ku demee ne xëy na Cheikh aadama Gueye neen sëñ Masamba Diop saama ko mag nangami at sëñ Daam Abdourahmane danañ ko ci wax ak wuute yi ci wuute ñii dañu ne jiitu na ko ñu ne jiituwu ko waaye ñi ci des ay ndaw lañ am na ñoo xam ne da leen a mag ak doole sax nag muy sëñ maam Thierno mi nga xam ne moo doon loxol da jooram euh, ba ci sëñ Mandumbe Xabaan ak ginnaaw bi ñii ñëwaat ci biir sëriñ bi ci boppam dañuy gis ni mu fonke ndaw wax nañu ne sëñ Moussa Alima Guèye mii nga xam ne dafa mënoon a bind lool keroog bis bi ñu ko indee ci sëriñ Touba sëñ Tuubaa da koo laaj ndax wattu nga alquran mu ne ko waaw mu ne ko taril ba mu tari wa ulaayika hum muflixuun ba mu ne ko doy na ndax li nga tari firndeel na ne mokkal nga la ci des waaye nee nañ keroog ci peggam la ko teg naan gis na ki tey damaa am gan ma bëgg ngeen ngeen teralal ma ko ngir moom la mu bëggoon mooy jàpp na ne euh, sipo liy mën a téye ab yar la ciy jiitu mooy alquran te kii mokkal na ko moo tax mu indi ko ca wetam foofu la jàngee lu baree bari gis nañu ko sëñ bi jegele loon ñi ci des ñëpp nag daanaka man maanaam ku demee ne euh, sëñ sëñ mbay jaxate ku demee ne sëñ xam sari jaxate ku demee ne euh, sëñ maxtaar bintaloo ñooñu nga xam ne bi sëñ bi di dem ci géej gi tollooguñu ci marutu maam ceerno la leen jox ba nim ba mu fi jógee la ñuy doog a sax samp kër waaye ñooñu da leen a wóolu woon lool daan def ci ñoom lu baree bari wax nañu ne bis coow bari na lenn ci mag ñi ba sëñ bi mel na ne daal xaw naa découragé ci ñoom waaye keroog sëñ mbay jaxate la romb mu toog ak sëñ maxtaar bindaloo ca gànnaar mu ne yéen ñaar ñi moom am naa ci yéen yaakaar ba tey mi ngi am yaakaar ci ndaw ñi loolu moo taxoon keroog ca njaareem ba mu teg xeer wa sëñ mod lamin nee na bari nañu fa nekkoon ay mag yi murit a nga fa waaye sëñ ba mu nokkee dane an an maxtaar bintaloo mu ñëw mu jox ko ba mu ñaanee ba nopp sëñ maxtaar bintaloo la ci teg te boobu xale bu góor la loolu ma bëgg junj rek mooy ngir aw askan jëm ca kanam ndaw ñi dañuy leen war a toppatoo bu baax a baax toppatoo gi nag ci tënk mooy nañu fexe ba ñu xam seen bopp xam li ñu yor lu mu doon sëriñ bi nag ñëpp xamu nañu ne loolu moom da taxaw bu baax a baax su ñu waxee école doy na sëkk waaye du école kese sëñ xalifa loo da ko waxoon nee na xali sëñ xalifam sëñ Modou loo Maxtaar nee na sëñ Cheikh da ko commencé wax ne ko Euh, diplôme silaax la nee ni la jëfandikoo silaax la silaax la am ko ba noppi nag doo xam noo koy jëfandikoo waaye nag bul ne damay nekk ba soxla ngànnaay doo ko wuti ngànnaay nee na demal jàngi am say diplôme soo ko soxlaa rek dana yomb léegi nag su loolu demee noonu dañuy xool ne ci tàmbaleen euh, benn bi mooy waxoon nañu ne kuy woote ku ne dangay bëgg a jiital ndaw ñi ngir la nga bëgg mën a sotti ngir ñoo mën a eggale sa sam njàngale fa nga ko bëggee loolu moo tax ba mu defee daayira bi moom daayira la jël daan ne kon na taxawu daara ji daana yónnee itam li ñuy wax inspection ñu dem seeti jàngalekat yi fu ñu toll ndax ñu ngi jàngale normal ndax ñu ngi ñëw fu daara ji toll ba nee ñu am na ci at moo xam ne sëriñ dafa seetlu ne kenn ci jàngalekat yi suñu ñëwee ñi ñoom ñiy saytu jàngalekat yi suñu ñëwee duñu fa fekk jàngalekat boobu am daa mujj dafa woo kilifa dëkk ba ne ko xam waxuñu la ngay saytu njàng waaye kuy teew ku teewut mën nga koo xam seen kii nag dangeen ngeen koy wax su mënee jàngale baax na su ko mënul ngeen dàq ko teg fa keneen ku nangoo jàngale nga xam ne kon mi ngi xool daal ji fu mu toll mi ngi xool ñi fi jàng mi ngi xool li jàng yëmu ci itam daana dem ci réew yi naar yi di xool ñoom itam seen njàng fu mu toll mu xool nan lañu koy dëppalee ak lii ca lañu ca ñor ndax am na ci loo xam ne su ma jumut euh, organisation lañ daaw OCI bu njëkk conférence islamique ñoom la ko bindoon wax leen ci ne fii jamono ji toll ci Afrique ak ni ko tubaab bi dëgmalee ak yahud yi soxla nañu njàng mu wér moo xam ne nit ñi dañu xam seen diine bu baax a baax moo tax nag bayee boo ngeen jàpp ci te jamono jooja ci ay 73 yooyu la muy ci mujjug sëñ Cheikh ak xat-xat yeeg gàllankoor yu bari yi muy jamono joo xam ne itam dafa tasanteeg eh, jamono neexut ndax maral la woon waaye amoon na yitte ak farlu ak bëgg gu toll ne ma nga leen di lijjantil foofa ngir mu wéy ba tey yooyu yëpp dama ci jublu wax na sëriñ bi kon ci njàng fo noonu la ci taxawee dama ne nag moom da jël yëmu ci teg daara ji rek ne leen jàng leen am na ci ñoo xam ne dañ ko daa indil moom mooy seet ku nekk fan la koy gën a fan lay gën a mën a jëm maanaam dañ koy jox nit mu yóbbu ko ca daara tarbiya ji waaye dañ koy jox nit mu yóbbu ko ca école da ngeen dégg lu siiw loolu ki nga xam ne dañ ko yóbboon ci école bi bañ nee ñu sëñ Cheikh da koo laaj lu tax mu ne man sama baay ba may joxe ngir may jàng taxul daa bëggoon may muritu daa bëggoon ma dem ca daaje di muritu sëñ Cheikh nag kon xamoo sa baay lu la fi indee sa baay da la indi nga ngir ngay déglu ndigal ak a bàyyi tere nga xam noonu rek la ko daal di lijjantee ci gàttal ci lu jëm ci xam-xam mooy sëriñ bi rek bëggoon na daal. fi jamono ji toll jamono ji bañ leen a raw ñu xam xam bu wér a wér loolu taxoon itam daana ci def kàttanam gis ngeen sëñ Malick dem mi fi jóge léegi ak euh, sëñ Moustapha Diop njekk ay seere lañ ci ñoo xam ne ba ñu jàngee ba noppi ba ñu dugg ci école bi sëñ Cheikh leen fi dugal moo leen génnee yóbbu leen ñu jàng ca réew yañ doon jàngee ñoom ñaar ñëpp Qatar lañ jàngee ba fa la ñu génnee kii science la def kii Euh, linguistique la def am na ci ñeneen te da leen daa wax naan da ngeen jàng te jàng lu wuute ndax lépp danañ ko soxla bokkoon na ci li leen daa tere ñoom ñëpp ñu jànganoo diine wala arab comme que jàng nga ba am bag kon normalement xam nga sa diine loo mën a lijjanti ko léegi nag jàngal leneen moo tax am na ñoo xam ne wàllu mbay lañ def comme ko demee ne Cheikh Mbuub mu faatu ca at yële am na ñoo xam ne mathématique lañ def comme ku demee Oustaz bari na ci ñeneen am na ñoo xam ne énergie solaire lañ def ku demee ne sëñ Cheikh Qatar kon li ma bëgg a juñu foofu rek mooy tasaare na leen ci xeeti xam-xam yu bokkut ngir bëgg suñu delsee ñu amal réew mi njariñ amal seen bopp njariñ te jamono jooja métti woon na métti goo xam ne génn rek wóorul oustaz Cheikh Gumbale daf koy nettali nee nag dañ leen defoon nañuy wax décharge mooy da ngeen dem waaye yéen ak état Sénégal dara ngeen jotewut nee na bañ ko waxee sëñ Cheikh sañ Cheikh dana leen dem leen rek yéen xamu leen ba xam su ngeen jàngee ba ñëw ndax da ngeen nguur gi wala déet su ngeen ko fekkaat dem xamu leen ba xam dana soppi comme déedéet ñu bare bare ay 82 lañ ñibbisi fekk nañ booba Senghor jóge na fi kon loolu itam gis-gis bu yaatu la yëmu ci da leen daa fekk fa ñu di xam seeni jafe-jafe di leen ko fajal bari na ci ñoo xam ne suñu masaa nekk ci réew yi ñu jàng xam luñ mën a su ko sëñ Cheikh ñëwee moom seen affaire day baax ndax dana jox ci bi Euh, tabaarkàlla loolu nag soo gisee lépp jubluwaay bi lenn la woon mooy xam na ne kele maanaam caabi réussite ci jamono ji ci xam-xam la aju waaye xam-xam léegi dañ koy natte ci ay diplôme du caagi ne ku amul diplôme amoo xam-xam waaye dañ comme que dañ koy natte ci ay diplôme daa bëgg ñu mën a yore diplôme boobu nga xam fu ñu ko war a ñu ne kii xam na dara te itam moo lay dimbali ci li waxoon muy man-man bi dégg ngeen euh, daanaka wax lu bare bari neen sax am na koo xam ne xëy na doom ji ba muy jàng ba xaw a sori mu bëgg ko cee génnee sëñ Cheikh dina ko déedéet bàyyi ko mu jàng ndax su jàngee ba am ab liggéey su baaxee dana la yor su bonee itam dana yor boppam ak njabootam maanaam su fekkee ne xam na àq wayjur dana yor yi wayjuram su ko xamut gën jàggaat moom dana mën a demal boppam soo amut lu mu liggéeyee nag day sonal boppam waaye day sonal ay wayjuram ndax nit ki ay mbokkam mënuñu koo gedd nga xam ne li itam beneen mbir la ci moo tax mu nangoon a sonn ci doomu aadama yi lool rawatina ci ndaw ñi suñu tolloo ci jàng kenn bañ leen ko yàqal ñu jàng ba xam lañ war a xam ba su ëllëgee kenn du leen mën a yóbbaale ndax fi may mujjee mooy jafe-jafey jamono mooy ñu bare bare dañoo xamatul li ñu yor nuy waxambaane ba ci mag ñi sax léeg-léeg doonatuñu seen bopp ay jaambur lañuy doon am na ñoo xam ne suñu solee ba noppi colin wi du la jox Touba du la jox sax Sénégal am na ñoo xam ne suñu waxee waxin wi du la jox ab taalibe am na ñoo xam ne suñu jëfee jëfin wi du la jox ab jullit loolu ñaari li koy waral ak réer a koy def loolu nag suñu seex lu mu teeloon a dindi la ci bopp nit ñi li ñu wax léegi ñenn ñaan xam-xam amul njariñ ñenn ñi naan la wax moom ngelaw la ñenn ñi naan la sëñ Tuubaa kenn du ko xam xamee ciy téere loolu moom sëñ Tuubaa daf sëñ Cheikh moom daf koo teeloon na génnee ci bopp nit ñi joxañ leen la leen di jariñ mooy xam-xam bu am njariñ te ñu du ci jëf jariñ ci jariñ ci askan wi loolu moo daa tax mu daa wax naan xam ma xam-xam buy tàbbal boroom sawara li ma xam mooy jëf ji tàbbal boroom sawara ndax xam ngeen ci am na saxaaba boo xam ne nee na nit ñi suñ daa laaj yonent bi salaa li ñu war a def man dama koy laaj li ñuy tere ndax ma mën koo moytandiku kon xam lu bon itam xam ne li baaxut wàññiwut dara moo gën sax ndax su dul loolu mën nañ la tàbbal te doo ko yëg sëriñ bi nag ci njàngaleem ci daayira bi mu teg yooyu yëpp aw yoon la woo xam ne suñu ko continuer incha allah taala dafa mel ne bëgg-bëggam danañ ko am ca na mu gën a yaatoo ñi ngi ci am aslëf waaye mën naa gën a yaatu bala ngaa xam ne ñi ngi ci am dara nga gis li jariñu léegi ci xam-xam ubbiku ci àdduna ci yoon wi wala lu dul yoon wi te ginnaaw yàlla sëriñ Cheikh moo ñu ci dimbali moo ñu xàllal yoon woowu kon sunu borom subhanahu yàlla na ñu ko fayal euh, ngën ji fay yokk yërmandeem mook sëñ Mouhamad Cheikh Abdou Fattah ak itam rawat na Oustaz Cheikh Sow mi nga xam ne moo fi jógee tey te mu bokkoon ci ñi ma doon tudd ne ci njabootuk sëriñ Cheikh la ñu bokk ndax ci ay loxoom la ñu jaar ba génn jàng ba ñëw nekkaat yàlla na yàlla yokk yërmande yàlla na yàlla yokk njëggal yàlla na suñu borom gërëm ngërëm loo xamante ni du am fu mu dakk mukk ba keroog saa di taxaw ñi ngi ziyaarawaat baax a baax tey ñaanal Cheikh Abdourahman ak mboolem njaboot gi suñu borom mi leen yëkkati ginnaaw bi mu leen bindee dara jaal leen kaweel leen yàlla na leen saxal ci jub ñu topp seen gannaaw ci bañ des gannaaw te ñu yàgg fi lool suñu borom mi nga xamante ni moom rek moo man moom rek moo am moom rek moo sañ yàlla nañu dolli tawfiq tawfiq boppam teg ñu ci siraatal mustaqim yàlla nañu wéral yàlla nañu am xam yokk sell laab barkeel wasalaamaaleykum wa rahmatullah cant gi nag jëm ci nun ñëpp ci taxawaay yi nga xam ne dañ koo taxaw tey te baaxoo koo taxaw waxtu woo xamee ne liggéey bii nu bokk soxla na wala kër gi soxla sëriñ bi nee na loolu mi ngi ñu ci sant bu baax a baax duñu ci gërëm dinu xamal ne itam li nuy taxawee lu rëy la loo xam ne ni ko waxtaankat bi waxee léegi rek mooy ndaw ñi euh, am nañ ci responsabilité bu mag ndax fu mu fi dem ñam ci gën a ràññee mooy ndaw ñi ak jigéen ñi loolu nag li mu koy won rek mooy mag ñi fi nekkoon ñenn ñi jiitu ji ñenn ñi des fi yàlla leen fi suñu boroom gën a yàggal ñi jiitu ji it yàlla na suñu borom yokk seen i leer euh, bàyyee nañ ndaw ñi ak jigéen ñi loo xam ne doy na leen ba fu ñu wootee ñoom ñoo cay gën a fës ñoo cay gën a jàmbaare nee na loolu nag lu dal xel la nee na nag mu dina soññ bu baax nag nee na soññ bi nag boppam la ci jiital ci ñu góor góorluwaat te laxasaayuwaat te mel ne dañuy door a tàmbali ndax fi àdduna toll ak nun kilifa gi nu am ak lim nu fi bàyyil nga xam ne daa indi lu war a solutionné problème yi doomu aadama yi di dund doomu aadama yi di dund ci wàllu koom ci wàllu jëflante ci wàllu lu doon nun ñi nga xam ne noo ko yoral ñépp mu nekk ci suñuy loxo sëriñ bi nee na kon nun am nañ aw sas sas wa nag wa ca gën a màgg mooy wi nga xam ne moom la ci sëriñ Cheikh jiitaloon mooy xam-xam moo di ay nit mënoo leen mënoo leen a jiite ay nit mënoo leen a wax ni fii ngeen di teg seen tànk te ñoom ñépp di borome xam-xam te fekk yow ma leen cay woo fekkul nga am xam-xam ba noppi li ëpp solo ci ndaw lu la sun borom dénk mooy nga fexe ba mu am xam-xam ndax sëriñ Touba daa waxoon ne yaa machara shubbaani in xiftum xajal fexe di mu fa xadimu naa la amal julli sax bala nga koo def da war a xam ni ñu jullee ba noppi bala ngaa jàpp da war a xam ni ñu jàppe ba noppi waxuma laa nag liggéey bi nga xam ne da nga caa war a wut am koom mooy terloo loolu bala nga bala nga caa jëm daa war a fekk nga gànnaayoo ak xam-xam bi nga xam ne moom nga war a gànnaayool ba noppi. kon nag sëriñ bi nee na nañu fedd suñu laxasaay te lu ñu defoon lu mu rëy rëy dëgg-dëgg dëgg la liggéey bi am na jéego yu am solo yoo xam ne seqi na ko. te bu ko seqi wuta nit du mën a do du mën a dox ba agsi fii waaye nag loolu lépp nag war nañ koo fàtte ci jàpp ne nun defagun dara danoo war a laxasaayuwaat doonaat nit ñu bees ba liggéey bii nga xam ne Serigne Cheikh moo ko sosoon te am lu mu ci bëggoon ndax daa waxoon ne moo yoon wi gën a gàtt wi gën a gaaw wi yóbbu nit ci yàlla te ba mu ko daataan wax daa wax ne seet naa yoon yi jëm ci yàlla yépp daayira moo ci gën a gàtt moo ci gën a gaaw ngir àggal nit ci yàlla loolu nag suñ ko do jamono yam koy wax xëy na sëriñ bi nee na mënoon naa jaaxle jaaxal ay nit waaye fi nu toll nii ku dem ci ndaw ñi dugg biir réew mi dem bitim réew gis daayira yi ni muy ni muy soppee nit ñi di leen def ay taalibe dëgg di leen def ay jullit dëgg di leen def nit ñi jub da nga xam ne li sëñ Cheikh waxoon loolu rek mooy dëkk nee na xolam sedd na bu baax mook mbokkam yi mu àndal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. La